Wadi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokk ni siraan yëpp di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha xalifa général kulu murit radiyallahu xafisahullah euh, wa raa di am lool di euh, présenté département bi nga xam ne benn la ci composante yi composé complexe Cheikhul Khadim eh, li tarbiyatu wa takwin diko and ak euh groupe de presse bu bu am solo ci yoon murit muy alxadimiya muy sen bo xamne lepp luy activité jëm ci wal yoon murit xab ràññee nañ ko ci lool ci liggéey def liggéey bu am solo xam ak lepp luy yëngu ci yoon da naka fo euh bo top Euh, ñu bari ci ñoom ñoom lañ koy toppee ndax dañuy couvrir événement yëpp kon ñu am mbégte lool euh, man nag maay El Hadj Falilou Seck nekk directeur des études département Majalis euh, kii jiite Majlis bi di directeur général bi ñu ko wax Seyxul Majlis Cheikh Mbak Sëñ Mbak Abdourahmane mu am secrétariat am tamit surveillance. loolu mooy yi nga xam ne ñoo composé idaara bi li wax direction bi kon ñun ñoo méngoo lépp lu jëm ci wàllu njàng mi euh, ci département bi majalis euh, bu dee majalis nag benn la ci euh, yi composé al mujamma bokk ci ci ëpp yëpp am solo waaye nag bokk na ci yi gën a ràññiku yi gën a jëmmal jublaayu sëñ bi bi muy amal barab bi te mooy li ko tax a jóg mooy former ay borom xam yoo xam ne dun jëm si doon ay borom xam waaye doon doon ay nit yàlla forme leen mën a am lépp lu war a xam ñu xam ko ci diine waaye tamit mën a garde seen cosaan wala tamit sàmmonteeg li jamono laaj lépp kon loolu mooy jubluwaay bi nit koo xam ne bu fi génnee da doon borom xam-xam waaye tamit doon kun yar ci yàlla mu doon nitu yàlla. garder li nga xam moy ciosanam cosaanam ubbi ko ci tayam euh, lepp lu jamono laaj ci and ak mom mu and ak mu nek lool moy li jitt ñaaral bi euh, genné ay ñoo xam ne ay borom xam doon ak imam ñoo xam ne dañuy man di àggale woote bi lislaam bi euh, dëppale ko nak jangalem cheikhul khadim radhiyallahu anhu ak agalé ko ci addu bepp ci deppele ko jangalem cheikhul khadim radhiyallahu anhu ci xeeti xam-xam yëpp nag muy sariya muy luxa muy euh, li ñu tuddee ay sciences humaines daan jàng yëpp kii bi bokk na ci objectif bi mooy li nga xam ne mooy méthode yi ñu doon jàngalee ci cosaan ñu koy garde nga ne jamono yu mujj yi jàng xeet njàng yu bari génn na fi waaye nag bi fi nekkoon te ñëpp fekkoo fi muy njàngaleem majalis mi njàngam xam-xam ci cosaan mi. am méthode yu ñu ko doon jàngalee ñooñu jëm a bëgg ko garder ba lim daan taxawee mu di ko taxawee te sàmmante jamono loolu bokk na ci li tax ma ma ma ma jóg kon daal ba barab a ngi nii boo xam ne ñi fiy génne ay borom xam la doon yàlla la doon waaye tamit barab la boo xam tamit bokk na ci jubluwaayam garder méthode traditionnelle yi nga xam ne moom baaxoo jàngale ci jàkka yi ci jumaa yi te li ëpp suñu borom xam yi. Euh, sunu imaam yi euh, génn ci ak nit su nit su nit yi su nit yàlla yëpp ñoom ci méthode bi ci lañ jànge woon ndax jiitu na fi ay siècle siècle yeneen njàng yoo xam ne moo am ci dëkk bi ci réew mi léegi yaakaar naa loolu mooy jubluwaay yu ëpp solo programme yi nag euh, li jiitu mooy xam-xami sariya yi mu ne xam-xami sariya yi nag mooy ulumul tawhid xam-xam yoo jëm ci tawhid ak ulumul fiqh wa usuluhu xam-xam jëm ci fiq ak usul fiq ak euh, tasawuf ak ulumul xadis xam-xam euh, euh, yu jëm ci xadis ndaka noonu tamit yu jëm ci jikkoo axlaaq ulumul axlaaq ulumul adab jëm ci jikkoo teggin yi yëpp ñu ko jàngale ulumul quran xam-xam yi màcc ci alquran muy tajwiid waaye tamit dañuy jàngale siira dundu bi ak taarix siira ak bokku na ci jangal tamit dundub cheikhul khadim radhiyallahu anhu ak mag ñu bax ñi bokku na ci euh, lool moy li ci moy moy moy bu ne wax sharia moo làmb loolu lépp mu amaat beneen bu wax wax lo xey moy matière linguistique yi mooy ulumul luxa ak euh, mang matière linguistique littéraire yi lool nak moy xawa arab bi arab ci boppam mom dañ ko jang li ci aji ci mom lepp muy nahwu sarfu imla baag adab baag balaaxa ba yooyu yëpp dañ koy jàng euh, ci étape yi nga xam ne moom la majlis bi am ndax noonu bu loolu jàll tamit am na ñu tuddee euh, les sciences humaines al-ulum al-insaniyya wal ijtimaiyya loolu dañ koy jàng lu mel ne xam-xamu mathématique xam-xamu ba tey jëm ci wàllu euh, falak jëm ci wàllu logique المنطق لجيم تي والو انفورماتيك دكو جانغ فيلوسوفي سيكولوجي او سوسيولوجي يوي اي خيت خام خام لو خام ني موي علم الفلك علم المنطق علم الحاسوب الفلسفه علم النفس علم الاجتماع يوي ييب دنجو جانغ تي نون سوكو ديفاي يوي ناك لن جيل مي خام خام يوي ني سيدلي كو تي 9 ايتاب 9 9 9 ا ا muy trois étapes étape bu ne nekk trois ans euh, étape bu njëkk bi ñu ko tuddee euh, étape fondamentale muy al marhal asasiya xale bi dafa def ñetti at bu fi jeexalee day am niveau euh, BFEM su defee am na bu ci topp benn étape boo xam tamit ñu ko tuddee al marxalal mutawasita muy étape intermédiaire étape boobu moom ñetti at la bu fi xale bu xale bi jeexalee. ji euh, ci la amee bac ndax non seulement dana jàng xam-xam yi nu baaxoo jàng ci majalis ak yéen ci dugal ci yu ci amutoon waaye tamit dañ cee intégré bagu état bi nga xam ne xale bi tey jii bu bu jeexalee étape boobu euh, day ma day présenté wu comme candidat bac am bagu bagam su ko defee bu fekkee def na six ans ci majlis bi. mu a benn état boo xam ne ñu tuddee étape supérieure supérieure ñoo ko al marxala al aliya foofu ñettaat la fi def moom it Euh, bu fekkee continuer bu jeexalee dana am licence licence boobu nag wala lu équivalence euh, wala équivalence am équivalence am moo koy may mu mën a continuer ci faculté bi def euh, masteram master bi dangay xool la nekkoon dominante am fekkente ne daa gënoon jàmbaare ci matière jëm ci wàllu sariya ak mel noonu ñu ko ci dirasat islamique étude islamique su fekkee gis nañ ne dafa gën ci matière linguistique yi ak yi ñu orienté ko ci xismu loxol arabi yow adab ba kon noonu la kon daal majlis bi suñu bàkkee euh, loolu ma màccaan ci jàngale ñu ngi ko séddale tamit ci trois étapes yooyu muy muy muy muy marxala asasiya marxala mutawasita marxala al aaliya euh, te étape bu nekk nekk trois ans yoo xam ne euh, bu ci nekk tamit buy jeex am na day am ay évaluation naan muy loo xam tamit lu bees la ci majal majalis bi ndax fii xeeti évaluation yi am yëpp dañ koy def maanaam ki jàngale bu jàngalee ba noppi bala science bi muy jàngalee jeex dana def évaluation bu toogee ab bu def bu jàngalee jàngalee ab diir dana dana def évaluation bu daa euh, mel benn trimestre mala trois mois am na benn évaluation bu ñuy def bu defaatee beneen trois mois muy muy semestre am na évaluation muy def ñu ko yëpp ñu ngi évaluation formative muy muy takk yu mu su demee ba war a étape bi def ci étape ci la def benn évaluation boo xam ne euh, maanaam boobu boobu koy may am diplôme moo chaque étape bu ko xale bi jeexal dina am évaluation def boo xam ne moom wax léegi bu dee bu ñëk bi ci la amé BFM bu dee bu ñaarab ci la amé baccalauréat bu dee bu bi ci la amé licence loolu muy lu lo loolu tamit euh, bokk na ci bees yi ñu ci majalis bi bu dee waaw yaakaar naa yaa ngi laaj par bu dee méthode yi ñu jàngalee hmm, méthode yi euh, mooy rek euh, bu njëkku li mu noon ci majalis mooy dañ jàngale individuellement xale bu nekk ñu jàngal mu berum jàngam su ko defee léegi loolu daan metti ci seen bi lool kiy jàngale waaye tamit daana metti tamit ci euh, maanaam ki nga xam ne xam ne xelam neexut lool moom waroon am ko jàppale day metti ci moo tax gis ñu bari dañuy jàng ay def ay at majalis bi li ñu war a xam duñ ko xam moo tax fii dama def mu nekk njàng mi njàng groupe la ñu ko séddale ay classe classe bu nekk euh, maximum 35 ba 40 moo fay nekk 35 élèves ba 40 élèves ñoo ne ci classe bi leçon bi ñoom lañ koy joxandoo moom sëriñ bi Euh, su ko defee lii kii nag mooy li ñuy gën a jublu mooy jubluwaay li muy jàng mu xam xam ne mën mën mën ko traduire ci langue na langue maternelle am ba mu xam ko waaye tamit xam lim lim lim làmbu lépp xam tamit les les si man a tiré ci ay leçons mu jëlee ko ci loolu euh, su ko defee bu dee lu ñuy appliqué kon bu dee bu dee lu mel ne euh, matière linguistique yi dafay am ay devoir am ay yu leen defloo ci ay ay travaux yoo xam ne mooy tax ñu mën a maîtriser langue bi ndax ku nga xam ne langue mu nekk pour maîtriser ko day laaj ci jëfandikoo boo ko jëfandikoo doo ko mën a kii moo tax am na dañu bàyyi xel bu baax a baax usage bi ci ci matière linguistique yi bu dee ci matière diine yi tamit noonu xale bi li muy jàng comme dañuy bëgg mu nekk borom xam boo xam ne nitu yàlla la dañuy focaliser bu baax a baax ci pratique bi euh, li muy jàng mu di ko xam waaye di ko jëfee bu génnee fii Euh, li muy xam dana ko xam dëgg-dëgg xam li ko war a xamee waaye tamit dana nekk comportement am ndax danga ko ci yar moo tax fii euh, xam naa danga ci ñëw ci kanam sax euh, am na ñoo xam ne dañ fiy jàng ñu fi féete am ñoo xam ne dañ daan jàng ñibbi waaye ñi ñi féete ñooñu tamit day am ay activités parallèles yoo xam ne maanaam dañuy gën a wiise éducation bi ndax xale bi bi fi génnee doon nitu yàlla koo xam ne lu yem rek doon borom xam waaye dañ ko xam ne maanaam dana mën a nekk relais ëllëg ci diine ji Euh, ci ngir comportement am ngir xam-xamam moo tax kon euh, dañ bàyyi wàlla xel baax kii bi kon njàng bi kon njàngu groupe lay doon euh, su jeexalee kii bi xale yi daan daan balaa jeexal kii bi ñëpp daan ko xam mu def benn évaluation boo xam ne moom dana dana xam ne moom xale yi xam nan mu doogoo kii noonu loolu méthode la ñuy jàngalee fii daal mooy méthode yi su ko lépp lu mu laaj nag ci matériel pédagogique yu ñu war a pour gën a jàppante xale yi xam gi ñu ngi koy ñu koy teewal ñu ngi su ko defee euh, lu aju ci non aju ci objectif yi tamit kuy jàngal la koy xam ba di ko gën visé ndax li gënoon mooy ñu bari nga ko xam ne daan jàng te bu jàng te du xam li tax di ko jàng moo tax li muy jàngal lu nekk rek kiy jàngalee wax nañ ko lii bu xale bi jàng lii leen bëgg mu xam ko ci lii leen bëgg mu nekk ci moom muy ay compétence muy ay muy muy ay capacité yoo xam ne dañuy bëgg mu ne ci xale bi su ko defee buy jàngale koy bàyyi wala xel ci évaluation bi ndax évaluation toujours ñu ngi koy tiré ci maanaam euh, objectif yi nga yi nga teg ci nga ci nga tiré say évaluation moo tax yooyu tamit bàyyi xel lu bees la ci fii tamit ndax amul lenn lu muy loo xam ne ki na ko euh, li ci yeesaat mooy téere yi ni jàng yëpp tamit euh, def nañ ko defal nañ répartition bi muy lu bees tamit maanaam fi ne xale buy jàng toujours jaxaar xam nan ñaata la la ko lan lan si la la ko war a jàng su ko defee dañuy xam temps bi koy jang bu dee ñetti weer nga xam ñett wër bu dee ñetti weer nga xam ñett wër mboolem tambalé ci eh, étape fondamentale ba ci étape supérieure bi téere bu ñu nekk rek xam na dir bi ko wara jang ndax def na répartition bi xam na nangami leçon la lool su ko defé kon lool lool tamit lu kii la ci ndax xam motax motax ñu xam ñu né étape bi kat ma dess na fee jàng nangami téré yi ndax def na répartition bu près ataa bi ci topp mën na fee jàng nangam téeméer ndax def répartition boobu loolu su fekkoon ne loolu du mën a nekk loolu daal mooy ci gàttal mooy programme bi. nit yi diine lay doon waaye nit yi ay borom xam lay nekk. waaw waaw xam nga xam nga li li jafe mooy am am xam-xam ba noppi euh, doon doon nitu yàlla boole si xam-xam bi refléter sa comportement soo nekkin say jikko say sa sa yar loolu te te nag naka jëkk nag ma ma ma majaalis loolu moo nekkoon mission ñi fa daan génn ñëpp ku na xam ne bokku ñoo ñuy génn ci yeneen jàngi nii ndax ci seen melokaan ni leen jàngale euh, bañ na ko ba dañ def seen daan seet barab yi gën a sell ñu leen fa yóbbu mu jàkk wala jumaa yi euh, ñi leen ko jàngal tamit doon ay nit yàlla ñu baax ñoo xam tamit ay borom borom xam lan doon doon nit yàlla su ko defee ñu loolu loolu ñu loolu doon am nag loolu bëgg mu nekk mu continuer ba xale bi fiy jëng dana am xam-xam la mag ñi daan xam xam ko waaye xam-xam yu bees yi xew tamit mu ubbi ko ci lool mën and ci ak mën ci and ak jamono ba noppi tamit koo gis xam ne kii maanaam lim jàng mi ci moom ci diina ja ci jikko ya ca yar ba waaw ca sell gaag yu mel noonu moo tax ñu ne ay borom xam yoo xam nit yàlla lay dem wala ma rabbaniyun fi ñu tollee ci tàmbali bi nag mooy comme ubbi na fekkoon na ñun ñu defoon liggéey ci war lépp anticiper woon nañ ci lu ci bare bare bare ma yi ma la wax léegi defoon nañ répartition Eh, étape bi ñu war a tàmbalee ren muy te comme comme ñetti étape la euh, te xam boo boo bu ñu xoolee ci objectif rek ma gis war naa jël lu mat 1000 élèves yoo xam ne ñenn ñi dañ fi logé ñenn ñi dañ jàng ñibi waaye comme dañuy tàmbali ñu ngi tàmbalee ci 3 ans mu doon 8 8 8 classe 7 ba 8 daal yoo xam ne moom moom la mu euh, mu ñetti at yu njëkk ñetti at yu njëkk yi di door premier étape bi loolu tamit euh, jël nañ ñin fi jël ba noppi. ndax doon doon ubboon plateforme ci ci internet bi depuis octobre euh, ñu bari bindu ci ñu bind nag bu ñu seggee euh, dendale ko objectif bi ñu tegoon gis nañ ne ñi mataroon remplir conditions yi matoon na 300 nag ñëpp jël nañ leen su ko defee ñooñu nag am na ci ñoo xam ne internet ñu mooy ñi ci nga xam ne mokkal nañ alxuraan te seen at seen at ëpp fukk at ak ñeent waaw. Euh, loolu te te njëkk te mbokk ci njëkk bindu ndax comme dafa bari woon te ñu war a ñu war a internet bariwul critères yooyu tegoon na doon ñu doon ñu njëkk bindu na bañ a fukk ak ñeent na mokkal alxuraan euh, na doon kuy tàmbali tamit nga xam ne kam commencé gud jàng waaw euh, loolu bu dajee rek moom ñoo ñu leen jël ñu ñu internet bi ñi si des tamit mooy ku ci mokkul waaye na nga wàcc gàtt gàtt na wàcc alxuraan ndax li tax ñu wàcc wàcc gi ñu koy sàmm ñu koy tàmm mooy fii yëpp téere yi nga xam ne ay mutun la waaye ay manzumaat la yu ni way nii xale dañ koy mokkal loolu moo loolu moo nekkoon njàngum cosaanu majalis ku jàngee ci majalis ñaari lam xam jëpp ci dënn ba lay nekk waaw ñu mokkal alxuraan loolu lay mokkal téere yi mu doon jàng loolu ñu koy garder fii moo tax moo tax kon ki nga xam ne tàmmul mokkal soo ko andee fii bu ko di ko mokkaloo ab jafe ci moom moo tax ñu ne képp ku fi jàng lu mu gàtt gàtt na wàcc ay yoon benn wala yoon nga xam ne tàmm na mokkal su ko def bu ko mokkaloo mu tuni dana ko mën a mokkal moo tax euh, kon loolu sart sart yooyu la doon euh, mu ñooñu ñooñu leen jël nag ci de ba tey ñaara ñaara di ci des bu loolu jàllee ba noppee ci loolu ta jël leen ñi nga xam ne ñoo fa war a jàngale te am na ci ñoo xam ne ay ay borom xam lan yu mag yoo xam ne xam ne xam ne ci dëkk bi ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu majalis ñooñu am na ñoo xam ne dañ leen fee orienté woon état bi moo leen fi orienté woon ñu féete woon jàngale mi tamit ginnaaw tamit jël naa ñeneen ñoo xam ne nit ay borom xam la ñu mag tamit ñu xam ñu ñu ñu ñu jàppale leen ci liggéey bi nga xam ne fi ñu ñu war a jàngale ñu sëpp jël jël nañ leen ba noppi. am na tamit koo xam ne moo war a yor wàllu contrôle surveillance surveillance xale yi bu bu bu bokkut ak surveillance céréale bi nga xam ne moom moo yor xale yi bu cour yeeg njàng meeg dugg be génn bi waaye ki nga xam ne mooy taxaw xale yi fi fi féete nga xam ne uh, maanaam activités yi nga xam ne ñoom la war a defal yooyu moo koy saytu uh, di leen orienté kooku tamit jël nañ ko waaw uh, mooy muy nit daara koo xam ne mooy macha allah kon loolu kon daal mën nga personnel bi fa war a liggéey daal ci ñu jàngalekat yaak ak administration bi moom ñëpp ñu ngi fi ñu ngi disponible noonu bu dee emploi temps yi tamit defar nañ leen xam nan bu tàmbalee 9 heures ba 13 heures 30 muy muy muy muy ñeenti waxtu yoo xam ne euh, am na benn 30 minutes yu fi jaar benn 30 yoo xam ne euh, récréation la moom ñeenti waxtu la ñuy jàng daal xam boo xoolee loolu ñeenti waxtu la genn wàll waaye genn wàll googu euh, après istiraha la noppalu la moo tax kon ñeenti wax la jàng ndax ndax téere bu nekk dañ ko jogleel waxtu woo xam ne moom lañ ko jox ndax dañu bàyyi wàll xel njàngale mi ak xale yi toppaate xale yi ak ak évaluation bi sëñ bi war a def moo tax euh, dañ koy accordé kii bu nekk une heure temps su ko defee bu tàmbalee neuf heures ba treize heures trente la war a wàcc léegi nag euh, ci biir loolu en temps yëpp defar nañ leen xam nan matière ni ni ni ñuy awantee ndax comme dañoo am matière yoo xam ne yi ci diine la jëm yi ci langue la jëm yi ci yi ci science la jëm lu ci nekk dafa war di euh, varier ñuy ñuy weccante moo tax xale bi ñett ci journée bi dana gis xeeti matière yu seet domaine yooyu yëpp dama jëm ci wàllu jàngu xam-xam sariya bi ak li jëm ci wàllu langue bi ak li jëm ci wàllu euh, matière scientifique yi mooy lu mel ne xisaab euh, ak jox géographie euh, mathématique yëpp noonu la noonu la kii la moo tax noonu la ko noonu la ko tëral tërale ci ci emploi-temps bi kon mën nga ne kon noppi nañ ci emploi-temps yi noppi nañ ci répartition yi sëriñ daara yi ñu war sëriñ bi ñu war a jàngale disponible na administration bi tamit lépp li matériel yi soxla woon xam ne am nañu de saway li cëpp teew na ba jàpp na dal démarrage bi war naa man am dans une semaine fekk fekk une semaine waaw ni ko kilifa yi waaw ndax ñu ngi ñu ngi aju ci kilifa yi waaw fekk fekk semaine la yaakaar naa dana war a mën a démarrer waaw majlis bi ñu ko tëralee mooy comme euh, moom moom continuité lay doon ci daara ji maanaam ñu mokkal alxuraan ci daara ji ndax si ni ko suñ bi waxee woon rek fii danga nga fiy dalee baa ba am fi doctorat dala fi ba ba am fi doctorat lu mën a nekk la moo tax xale bu bu defee ñeentaatam fële ñaaraat yi muy muy defaat foofu pour mbindum kaamil ma ak ma da koy boole di ñëw ci majlis bi di ñëw ci majlis bi nga xam ne nga xam ne daanaka buy jeexal ci daraje benn at lay def fii rek jeexal premier premier étape bi waaw wax na boo defee ñeenta rek daal di mën a am bac baccalauréat ndax ndax fekkoon na defoon na defoon na ñaaraat fële ñaaraat yi yi ko desoon daraje doo ko boole woon ak fii moo tax moo tax ci jógee ci daara ji fii lay ñëw mottali bi ba am fi baccalauréat wala am fi licence bu ko neexee doog continuer ci euh, kii bi euh, ci ma ci collier bi faculté bi mooy enseignement supérieur bi noonu noonu lay demee comme na bii noonu noonu demarandoo euh, ñi fiy jàngee dañ leen jëlee ci biti waaw moo tax moo tax ñu sax ñu yem ci 300 yi nii moo tax sax ñëpp logé wu waaye su bu kii bi ñi jóge ci ñi jóge ci kii bi moom war na dem majlis bi ñu fi nekk ñëpp fii loose fii loose ndax ci majlis bi ci daar ji la ñuy jóge euh, ñoom dañuy continuer ne fii ba euh, seen lépp ja waaye comme day door démarrer euh, daara ji génneegul ñu mokkal ñu jël ci biti nag doo jël lim boo xam ne féete ak ñoo xam ne dañuy jàng ñibbi. waaw jërëjëf xam naa kon ñi ngi ñaanal rek ñu di sàkk mbokk julli yëpp ñu ñaanal Cheikh mu Mountakha suñu borom sàmm ko ba lii ñu tàmbali. mu ànd ko ñun yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg euh, ndam yi yokk jamono ju nekk di soññ suñ sama mbokk taalibe bi yëpp tamit ñu gën a jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax xam ne li ko sëñ waxee rek li amal lii li ko yor moo ko doole moo kon ñu bàyyi xel bu baax a baax xam lii euh, dara jiitu ko ci liggéeyu Seexul Xadim radi daanu kon loo xam dañuy wax ne bokk na ci ay naalam yi mujjoon euh, ñu ñu amalal ko ko nan fexe ba ni ko mu borom di waxe rek mu bañ laal suuf jamono ju ne muy gën muy gën muy gën a jëm kanam euh, di sant bu baax a baax alxadimiya ci euh, intervention bi macha allah comme ni ko waxee woon rek seenu murid yëpp la euh, daanaka ku bëgg topp activité yi xew ci yoonu murid daanaka rek mën nga ci mën nga ci abonné jamono ju nekk di sant bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah